mi yewta on on accay hakke min holla on min yewta on ko woni muñal min hollita on ko woni ɓaygal lalaw ƴaɗo oto tappita noon yehe hey ɗani ko yaw law ƴamiraji ma min mi yiiɗa hawrude e maɗo baben kadi ara hawra e ma mi haalnima go min wiyata tappita ɗa jonna miraji ya lawƴo a jooɗode e majji jogi bimbi a law ƴalde yehi law ƴamiraji ma min mi yiiɗa hawrude e aɗa jooɗiɗa mawla ɗi mirani ɗo ha joni itimi jonoma ɗum a gayna joni ɗa mawlude ɗum aynayi ayna jogui e hm? mi sukaɗani ko a ƴogoyo tenoya leɗɗe ala ayi mi suka e leɗɗe walaki mi yano ko baylo jon ɗa mi moƴƴinanma ɗon tenir kum tenir kum ko andi so tawi woni hiɗa yewde ɗum ɗo acci woni ko ɓawa suuɗuɗa so ɗa yaade rewana ko ɗo yaaha ka ladde to ɗa ɓenoya leɗɗe nani wona noon ko yaawi noon reyaade ka ka kore jangon ɗa mi hartay joni sinari mi tawa gayni konsaade nani nani déedéet <laughs> 원사대리 고가니 제파레 어디 파디 하로기 한다가 뭔가가 어원지 수레마나 나 아리 랑아르데 Prefera baaɓe souleymana ene kono souleymana waɗi baaɓen joni souleymana ko woni golle makko ko e kawtalo tenanoyoɓe ko heɓa ko ñaama souleymana tigi waɗi ɗum nene baaɓen ko souleymana a yiyimo waɗi ɗum ɗon nene mi feytata souleymana mumen ko souleymana eyo joni ko ɗum o watti yaltude ko saara waɗa ɗum ɗo honno o warta e o tawa mi ɗo o tawta Souleymane. waaw yow jaarama. waaw barmaale. waaw ay di ka gese. noon komi sikkanama souleymane eyo joni ko hirtugol lan paalaɗa souleymane ɗon waɗi ba Souleymane jooni a faala hertinde e hakkunde sara nde souleymana jooni koya yaltugal saare eh. toragol ko ñaamete eh. souleymana awi e eh, ala e ñaamude kan nder galle ka souleymana ko honno mankirɗa souleymana he jooni ndaara tawa sina ya yaltu kan nder saɗa hertingol ma hiɗande nomi wayi nomi wayi noon ganda saare ɗo taw joni koya immoyaha e toreygol ñaameteeji ma wasi a ala e ñaamude ɗum noon ko laawol souleymane min tawi mi toroyaaki mi addana min kawtal ngal noon noona e emi tenanoyɓe leɗɗe mi emi tenanoyɓe tawi ɓe defi ɓe okkorimi ɗon seeɗa addani min ka galle ɗon eyo a toraaki wonaa ko sabu ɗen leɗɗe taki mi hokkuma ni min mi hollama ko nder galle ga mi holluma ga golle ɗe gollata hara wona yaldu ka nder saare e ɗaɓɓugol golle ko golla ko ɗum holliri ko ñamete wonɗa e ɗaɓɓude sinaɗo min miɗon moƴƴinanma ga tenirde ndi yara ka ka guese ɗaɓɓoya leɗɗe ara saggene haysi ko poti heɓuden saggene walla walla jabere e gobo fof no ga saggene ñaami ulu sa yalti yawi yanga yaha woni toroyoɗa ɗum kan nder saare hara min a falna e hertinde ɓayno gonga ɓe joni sa yiiɗa yalta ga yaha ɗaɓɓugo golle ko si tawi woni golle ɗen ɓe mi wino golle wonɗe gaɗe no ɗuuɗi kono noon ɓay mi daari mi tawi a yurmaka hoorema min miɗo yurmima kono an a yurmaka hoorema joni si allah jaɓi si allah o newni golle ɗen komi ɓeydeɗo ɗe itti hannde allah e ɓey a jowgay a teenoyay hay defugal a watta e wadde si allah jaɓi ɓay so mi haalanima a nanata ayi ayi ayi ayi si allah jaɓi on tigui haalay tun ƴetta noppi ma ɗin jonnaɗi sar nden a jantotaka komi wolata komi min kono noon ayi ayi si allah jaɓi yahu dara si tawi woni ɓe maranoma ñiiri ka ka ka ka kuriru to jalto be gurna e jam ala toon jalto andena arno ɗo ɗo wanna ɗo hande ko min defa ɗo so ɗum jogi ko defon habbalam darata subto so nen ka seeɗan heddi ɗo noon tawa e maaro kon lanndimi nden no adnaɗa maaro seeɗa babe nani ah, eh, si ɗum anni ke tum ñametemo ngo lanni par no woodi e sendoɗa si allah jaɓi nani eyi jarama boye yetto si allah jaɓi jarama boy yontere ɓaawo hannde jaaraay jaaraay to jooɗiɗo o o mi jooɗaaki mi wiira e woni jaaraay mi ar ñaami ndiɗo verñaade ɗiɗo tawi hayde maga koɗo fendoɗa nde no tiwi tiwu ɗeɓatama saɗa accimi ñama miɗo weela gara mi jejjima accimi ñama no weelaman taw ma ɗo ɗo jaray ko soɓe wonda jaray jaaraay ko soobee wonɗa jaaraay accum ñaama fi allah hay siko cayre wotere souleymana na ari lan arde ñaari awa heno ɗo nani ni jeenum ɗo Tamam. Ndilo? Hilo. Nani mitaida nyama dodo jabal nyama tani. Ndilo no minyama. nyama tani. Ndilo no minyama hili. Ana ya jabal minyama nyama. Nyama ino ndilo. Ndilo no minyama hili. Ndilo nyama tani. Nyama ino ndilo. Ndilo kwa nyama. Achidi. Ana. Nyama ino ndilo. Hey hey hey. Kono ndilo. Ba bengo Suleiman do adi nyindi ko. Nyama tani nyindi pion. Mm, Asulema pion. bakka nane de mi tawi mo ñaamude ɗo mi anndi mo somi ar min ñaama o e jaɓaani mi ñaama jooni noon kawtal ngal hokkila ndi ɗo ñaami ñiiri makko nde tinno piyo yi ndi ɗo jooni noon mo faala ñaamde ndi o wima o haran jooni fo harani a ƴettawi boolal ngal jonnama o ñaamama o ko miñammani aɗa ko bandirawo ma ka mi ñaamal to mais fof emo waɗo ko miñirawo ma kanko wima o harani an hani mo muñanade eyi eh, addu ɗo boolal ngal jonnama ñaama o ñaama eh, jabu koɗo accanayi miñam mum seeɗa ñam nan ñam ahara mene ka fu Süleyman. Süleyman, wanda fakin da ayi wata Süleyman. Ka fu koyewul. Eh oh, eh. Oh. an ah, souleymana oti de faala yaltude kañum kadi ndaara si tawi allah waɗi arsike mum no yaadu toon ndaara si tawi heɓoye ara tambitoro ah, a faala yaltude ndaara sa yiide arsike maɗen ah, a faala yaltude yaha wiiɗa ndaara e arsike joni a tuɗa e juɗɗen waɗin du'a kono waɗi ɗo ko koto an ɗo kota mi wimo ndiyan e, ala ɗo leɗɗe ala ɗo ko yaw tenanayi men o ƴewɗanayi men ndiyan na annaali ko miñoma wima ko ndiyan ala leɗɗe ala waaɓe on to wonoɗo teenoyo ƴogoyogo e itta hakkille ma e on ɗon on ɗon o yeehi ayno ala waɗi o yeehi itti hannde ko a wonno ɗon ka woni artude ɗon sipa anani a keenoyo leɗɗe ɗen arta ƴogoya def an nani waɗa ɗum noon ka noppima miñamma wona ɗo o defa anani itti hannde noon waɗa ɗum noon ka hakkille ma ka watta ɗum sikko anani kono anandi ka oyi jokkitema jokkitamo ko ɗon ndami jaabade kono si noon ko an jokkitatamo way noon komi wima kon a waɗay ɗum noon a joga a tenayi mi anda noon ko hon so woni ɗa fokkiti nokku yettula ala ƴetta kenniɗum nayi kande wowi walade ɗum ƴettande yaha hey kono wino komi wonɗa jabade komin jabotoɗa a tawta elam ɗo si allah jogi si a wondi e neɗɗo faaɗuɗo ɓernde hay si tawi ka wonɗon ɗon hino yaaji faaɗante amma noon si a wondi e neɗɗo yaajuɗo ɓernde hay si tawi ka wonɗon ɗum gino faaɗi yaajante sulaymana hucciti e ɗaɓɓere ko gonga himo andi ko wacci ɓaawo kono o anda ko suti o anda ko tawoyta salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum 할머니 들어와. Babe. Babe. Babe. Babe. Babe. Babe. baba carake de hannde min ɗo koɗo arɗo noddanmi baba ko ɗum haɗimi noon hansi ɓuri o nan mi waɗa